للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد العليم من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة ميمي الملك دال الدوام وعلى آله وصحبه وسلم جناب بن سنتي الله julli ci yonente bi alayhi wa salam sant khadimul Mustafa sunu yaakaaru tay ak euleuk ñaanal serigne cheikh sidi mokhtar mbàkke yalla yokku ay leram ay ci mbar sax dañuy ñaanal sang bu tedd bi jambar l'islam serigne abdul ahad mbake ibnu Hadi rasul tey xol yëpp tooy nañu ndax ñu ndaw ñi dañuy roy ci moom ak njàmbaar dañuy roy ci moom dañoo war a roy ci moom ak dëggu soo ñëwee cay ci Touba nga ñëw ci jumaa ji gis fi lii fi am tey ñëw daaray kaamil nga xam ni sëñ Abdoulaat kenn du moom mënuñu tey ci bësam bi lu dul fàttaliku ay yiw jikko ju tedd ja ju sell jëm jële woon ci waajuram bu tedd bi di xaadimul Moustapha loolu yëpp ñun tey dañ cee war a roy kon xam naa xol fees na bés bi bésug ñaan la bésug nangu ñaan la ndax jàpp naa ni lu ñaan lu waay ñaan ci barke sëñ Abdoulaye laxat yàlla may la ko ndax liggéeyal na ko boroomam liggéeyal na ko waajuram bu tedd bi waaye ñun ñëpp tey amal nañ ko njukkal fii ci dëkk bi ku ci am jàmm mbala boo tëddee nelaw euh, doo xalaat dara doo tiit dara loolu sëñ Abdoul Ahad Mbacké war nañ ko ci delloo njukkal ci ni mu organiser dëkk bi ci ni mu tëralee dëkk bi dañuy ñaanal nag doomam ju tedd ji ak njabootam gi fi nekk yépp yàlla gën leen a suturaal yàlla gën leen a yiir seen barke waajur wi topp leen ñoom ñépp te topp na leen sax ba li seen waajur bëggoon yëpp ci ñoom ñu mën ko koo mottalil suñu xol dafa fees dañu ñaanal sëñ Abdou Lahad. waaye mënuñoo wax ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké te waxuñu lu jëm ci wàllum administration. ah waaw administration bët li ciy weex ak liy ñuul kenn mënu koo tàggale sëñ Abdoul Ahad liggéeyam yemul ci dëkk bi yëpp ci réew mi yëpp la ndax bokkoon na ci ñi nga xam ne daan nañ xewal xelal njiitu réew yi fi jóge woon. daan nañ am ay jafe-jafe yu tara tar du ñu xam nuñ ciy génne da ngay rappelé wu rek ci li xewoon Mauritanie jamonoy Senghor itam ku ci nekk rek sëñ Abdoulaye defal na la loo xam ne réew mi yëpp ñu ngi ciy jëriñu tey man daal li may wax mooy ñaanal sëñ Siidi sëñ Abdoulaye ñaanal ay rakkam ñaanal ay doomam ñaanal sëtu sëñ Abdoulaye yëpp yàlla gën leen barkeel ni peppum suuna gën leen a dëgëral te ñu topp ci seen ginnaaw. ci barke Serigne Touba xaadim rasulullah lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatul xarra wa inni ahmadu